su ñuy def ba ba ba ba juboo ñu ñuy def ba am candidat defe naa ni loolu moo gën a ñor tey ay yii ñuy def yëpp. affaire réew dadul affaire bu ndaw buñ koy laaj dañ koy teg ci lu sérieux am na ci ñoo xamante ni tudd nañ leen ci affaire corruption am na ci ñoo xam ne génn nañ réew mi gisatuñu leen am na ci ñoo xam ne génnuñu réew mi waaye ku nekk xam na ni jóbuñu président de la république nag monsieur Macky Sall mooy jafe-jafe ba mu jànkoonteel bu la jàggee ruur law jooju wax jeex